وجاد كل بأمن وشكور asalaamaaleykum wa rahmatullah jot nañu ndigal ci cheikh mouhamadul muntaxa xalif général kul murit ñu ngi ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér wàcc ci rakkam ju baax ji di jëwriñam di sëriñ siidi moom cheikh abdoulaat waaye nag jëm ci seen doom cheikh abdoulaat moom cheikh mouhamadul murtada moom cheikh abdoulaat mooy am mbégte di leen woo ci màggaluk cheikh abdoulaat gi ñuy amal ca Côte d'Ivoire mu ànd koog daayira Cheikh Abdoulaat ba nekk Côte d'Ivoire sëriñ bi nee woo na ñëpp bàyyiwul kenn képp ko ashadu an la ilaha illa allah ñu ngi lay woon ci bisu Cheikh Abdoulaat ah sous la présence de son excellence monsieur Abdoul Khadir Agne ambassadeur du Sénégal au Côte d'Ivoire et le consul Sénégal au Côte d'Ivoire monsieur Mokhtar Belal Ba ak représentant du khalife général des Mourides en Côte d'Ivoire Serigne Macoumba Thiam waay waay kan mooy parrain bis ba nag ah sëriñ maam Thierno ñu gën koo xam ci sëriñ Koso mi taaw Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak kan Habib Bieye entrepreneur bu mag di taalibi sëriñ Fallu di jàmbaar lool waaye kan mooy marraine bis ba nag soxna aji ñaaña Sourang madame ambassadeur ak soxna maam Marème Touré Abidjan taalibeb Serigne Saliou soxna Ndeye Maguette Thioune princesse ñii ñooy mareenu bis ba waaye ñan ñooy invité d'honneur ya nag ah Serigne Modou Bousso Dieng doomi Serigne Abou Barak xalifam Serigne Fall di kenn ci Cheikh Abdoulaat Serigne Aydara Sey ma Mamadou Kébé entrepreneur Serigne Modou Diouf Mboof mu Serigne Sall ak kan soxna Astou Kounta Ndiassane Bintu Alhaji Mambou jàmbaar ji docteur Diaw taalibeb Serigne Saliou soxna Khady kan koko di soxna Mati Sakho président femme restaurant Abidjan. ah ñan la ñuy rendre hommage nag ca bis ba soxna Assou Ndiaye ak soxna Tooba Ndiagne ak monsieur Abdoul Karim Baas ak monsieur Aline Mami ñaan suñu borom yokk seen i leer. programme ba nag nu muy tëddee bu nu xëyee daanu jàng alxuraanul karim bu ñu demee nag ba tisbaar ñu pause julli bu ñu jullee ba noppi ñu xeewlu nag waaye bu ñu xeewloo ba noppi nag ñu tàmbaliwaat njàngum xasida yi kam muy ubbi njàng mi. sëriñ Pathé Mbeng ak sëriñ Youssou Thiam ak sëriñ Ibrahima Mbodj xasida waay waay bu ñuy daanalee nag daanu amal waxtaan ci kan ci jàmbaar ji Cheikh Abdoulaye Borom Belal bis boobu nag ñu tuddee ko kan Serigne Bassirou Mbacké doomi Serigne Touba kan mooy def waxtaan wa Serigne Gana Messere bu demee nag ba takkusaan ñu dalal gan ñi ñu ubbi cérémonie officielle bi nag ka fa teewal Cheikh Mouhamadul Mountakha yëkkati kaddu ak ka teewal président de la république Macky Sall waaye waaye bu ñuy jeexalee parrain bi dana jël kaddu marraine bi dana jël kaddu ñu julli timis nag waaye waaye waaye ñu def discours bi nga xam ni ci la ñuy sant ña fa teew ñëpp waa daayira Cheikh Abdoul Ahad bu Côte d'Ivoire bu noppee nag ki liggéeyal baayam liggéeyal maamam le maraad de diaspora Cheikh Abdoul Ahad mi ñu fayee maamam dana jël kaddu nag sant mbooleem ku fa ñëwoon waaye waaye bu daanelee sëñ ak saa sàmm dana fa jàng ak jàngkatu xaside yi nekk kaddu bari yëpp waaye waaye ñaanalante nag ba déwén ñaan nañu ku fa teew Cheikh Abdou Lahad sedd la ku mu sedd nag bu déppee sedd say bokk bis baa ngoog la 24 mai lay doon fan ca Côte d'Ivoire 13 bu ko kenn wut.